abonnez ci notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez ci notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay digil kasaladam sidi baram a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in salli allahumma ala sayyidina muhammadin al-fatih al-khatim nas al-hadi wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdari azim radiyallahu ta'ala an ashab rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ya ahmad shaykhi uhduri lana bi hadha al-mahdari wal ta'tifi bi nadratin ta'ti lana bi dhafari ñu ñëw suñu darsu nasiha insha allah ñu ngi ñëw ba léegi ci firi Mawlana Cheikh Tidiane ci xel yi Eh, radiallahu anhu mu ne wal martabatu salisa fi l aqli wa hiya axatu almaratib wa asfaluha huwa al aqlu almaashi alladi yudabbiru amra dunia wa zawahiraha min alshahwati walcukuufi ala almaalufati wa xubbi rahati wal inhimaak fi mutabaati alhawa Cheikh Tidiane radiallahu anhu mu ne martaba ñetteel bi comme waxoon nañu xel ñetti martaba la mu ne martaba ñetteel bi ginnaaw biñ gisee eh, aqlu rabbaani topp ñu gis ci aqlul kulli tey martaba ñetteel bi nag mu ne mooy aqlul maashi radiyallahu anhu mu ne mooy martaba bi nga xamante ne jaanaka ñëpp xam nañ ko ci maraati bi mu ne waaye moom moo gën a suufe ci martaba yi moom aqlul maashi mu ne mooy martaba bi nga xam ne foo ko fekk rek moom dafay seetantal yëfu àddina ak zaahiru àddina yi xel moomu ci loolu rek lay ne foo ko fekk rek àddina bi rek lay lijjanti yëfu àddina yi ak yëfu zaahir ci àddina bi waaye tukkee ci shahwaat yi maanaam bànneexu àddina yi ci yooyu rek lay ne xel moomu ci yooyu rek ne ba noppi itam mu sax ci affaire mbëggeel yi rek yaa ngi dégg ci loolu lay sax moom xel moomu noonu mu ne ak lan bëgg bëgg lu yomb maanaam bëgg lu yomb bëgg noflaay xubbu raxaat foo ko fekk rek moom daal noflaay rek lay lay lijjanti waaw xel moomu ci loolu lay xirtal bëgg lu yomb rek waaw loolu nag yàlla nañ ci yàlla musal mu ne ak lan mu ne ak euh, lab dégg nga ci topp sa bànneexu bakkan mu ne xel moomu itam ci loolu rek la nekk ci loolu itam la lay xirtal yow mi ko am foo ko fekk rek yow daal topp sa bànneexu bakkan rek lab ci dégg nga na nga xamante ne yow xubbul maanaam aqlul maashi moom nga yor dégg ak lan bëgg lu yomb bëgg noflaay foo la fekk doo nangoo sonn doo doo doo doo nangoo jëfal sa bopp dara fu ñu la fekk rek yaa ngi ñor di loo xamante ne yow daal yi fu coono waxoo ci dara noppalu bëgg lu yomb ak yu demee noonu yow ci ngay dox nga mu ne xamal ne aqlul maashi moom moo nekk ci yow dégg ak lan mu ne ak daw lépp loo xamante ne dégg mu ngi eh, eh, eh, sonal nit ki yaa ngi dégg lépp loo xamante ne nit ki bu ci jaaree rek am coono am jafe-jafe day gis ne yow doo nangoo aw ci ci ci yooyu mbir dégg nga su ko defee ba tey loolu aklul maashi moo koy def ci yow Cheikh Tidiane mu ne xel moomu mu ne dafay nekk ci nit comme ni muy nekkee ci bahaa ima yi waaw dafay nekk ci nit comme ni muy nekkee ci bahaa ima yi bahaa ima yi am nañ ko comme ni nga xamee ne noonu la ko nit ñi amee <laughs> dégg nga mu ne walla la yéju wala aqlu alladi yajibu taqdimuhu wal aqlul akbar arabbaani xam nga boo demee ci wax ji ibnu arab dafa wax ne qaddim imaaman kunta anta amaamahu na nga jiital imaam boo xam ne yow yaa nekk imaamam yaa ko jiitu woon mu nekk imaam boobu nag wala aqlul ladi yajibu taqdimuhu mu ne xel mi nga xam ne moo war nga jiital ko nag mu ne huwa al aqlul akbar rabbaani mooy xel mu mag mi nga xamante ne moom lañ tuddee aqlu rabbaani dégg nga wala ñu ne ko aqlul akbar mu ne xel moomu yaa ngi dégg moom nga war a moom nga war a jiital xel moomu nga xam ne dégg mu ngi ci ginnaaw xelu maanaam aqlul kulli dégg nga aqlul akbar rabbaani alladi huwa min waraai aqlil kulli mu ngi ci ginnaaw xel mi nga xamante ne mooy aqlul kulli bi dégg nga mu ne mooy li ibnu arab di wax wa qawluhu ak nim ko waxee moom ibnu arab qaddimhu maanaam jiital ko waaw qaddim imaaman na nga jiital imaam boo xam ne kunta anta amaamuhu yow nekkoon nga ko jiitu yow yaa ko woon mu ne li an hada al la yaddu ila kamali taalluqi billah mu ne parce que xel moomu mooy aqlul akbar wala aqlu rabbaani moom soo ko jiitalee moom rek moo woote woo dëgg-dëgg mat ci yàlla moom moo woote woo dëgg-dëgg aju ci yàlla moom léppam dafa aju ci yàlla moom aqlu man ma aqlul akbar boobu noonu dafa aju ci yàlla léppam dafa aju ci yàlla mooy moom moo woote woo itam matak ci laab ci lépp lu duhut yàlla moom daf ci deñ ba set wecc dégg nga ci jëmm ak ci jeexilit waaw moom dafa mat ci yàlla dafa jeex tàkk tàkk ci yàlla dafa set wecc dégg nga moom ak lu rabbaani dégg su ko defee xel moomu yow nga war a jiital waaw lu tax parce que moom set na ci bokkaale ak yàlla taalluqan wa musaakanatan mu ngi aju ci yàlla te mu ngi dëkk ak moom waxtu wu nekk yaa ngi dégg waxtu wu nekk itam kuy settantal la dégg nga waaye waxtu wu nekk itam yàlla rek lay wéttalu ko waaye waxtu wu nekk itam yàlla rek la namm moom aqlul kulli dégg moom aqlu eh, aqlul akbar wala aqlu rabbaani dégg nga mu ne walida yajibu taqdimuhu loolu moo li tax nga war koo jiital moom mu nekk imaam yaa ngi dégg li annahu yajibu mutabiahu ila xadratillahi mahdan parce que moom dafay xëcc ki ko topp daf koy xëcc jëme ko direct ci pay yàlla bi yaa ngi dégg wax ji mu ne bi kamaari taharati min kulli ma siwaha mu ne ci matak laab ci lépp lu duhut yàlla waaw maanaam dafay xëcc nit ki jëme ko ci yàlla ba nit ki nekk ku laab ku set wecc ci lépp loo xamante du duhut yàlla subhanahu wa mu ne falida yajibu taqdimuhu wa mutabaatuhu mu ne loolu moo waral dégg nga mu war ñu jiital ko parce que moom dafa sell amul benn bokkaale moo waral itam ñu war koo topp yaa ngi dégg wa qawluhu kunta anta amaamahu ak waxam bi nga xam ne wax na ko yow yaa nekkoon ci kanamam xaddim imaaman jiitalal imaam dégg nga lan la jublu ci imaam bi mooy àqlul rabbaani te mooy àqlul eh, akbar mu ne na nga jiital boobu imaam imaam boo xam ne kunta anta amaamahu yow yaa nekkoon imaamam mu ne yow mi nga xam ne nag yow yaa nekkoon imaamam lu ci jublu yushiru ila xaalatu shaxsi mu ne dafay junj foofu noonu ci xaalu nit ki jamono bi nga xamante ne yow yaa ngi nekk nit ki xaysu kaanat bashiratun mustawlatun alayhi jamono bi nga xamante ne yaa ngi nekk nit da nga yëfu nit ngay jëfee kiiraayu nit moo nekk ci yow ak yu demee noonu su boobaa nag <coughs> amoon leen looy def la yasaa illa fi mutaabaati hawaahu dara warul la lu dul yaa ngi topp rek sa banneexu bakkan da nga su boobaa kooku noonu da Euh, euh, kooku la ñu kooku mooy ki nga xam ne moom moo jiitu woon dégg nga mu ne wa jaala hawaahu nasaba aynayhi wa amaamahu yaqtadi bihi mu ne ba noppi mu ëlbatiku jël boppam def samp ko maanaam samp ci kanamam dégg nga euh, bànneexu àddina dégg nga nit ko nga xam ne dafa jëloon àddina samp ko ci kanamam rek di ko jaamu ci jëmmam mu def ko ci kanamam mu nekk imaamam mu topp ko di ko roy dégg nga Euh, mu ne kooku na jël aqlu rabbaani yaa ngi dégg mu mu maanaam mu jël aqlu rabbaani ak ay attem yëpp mu sànni ko ci ginnaaw mu ne loolu moo tax mu ne qaddim imaaman kunta anta amaamahu na nga jiital imaam boo xamante ne yow nekkoon nga jiitam imaam boobu nag yow maanaam euh, euh, mooy mooy aqlu rabbaani waaye yow dafa fekk yow nga jiitu ko lu tax nga jiitu ko parce que. yow eh, da nga jiitaloon bànneexu àddina da nga jiitaloon àddina da nga jiitaloon neex-neexu àddina danga da nga jiitaloon àqlul maasi mooy xel mi nga xamante ne mooy xel ak dund gi dégg nga yow xalaatoo lu du lekk ak naan ak sëy loolu nga jàpp moom mooy àddina bi mooy moom mooy jaamu yàlla ñoon la déedéet àqlu eh, rabbaani mi nga jël sànni ko ci ginnaaw dégg nga te moom moo war a nekk njiit jël ko nga jiital ko te nga bàyyi <coughs> dégg Eh, eh, eh, maanaam aqlul maasi bi nga xam ne moom nga jiital te mooy sa bopp bi yow dégg nga su ko defee loolu moom moo tax ñu ne qaddim imaaman kunta anta amaamahu parce que fa lida qaala kunta anta amaamahu loolu moo tax mu ne yow nekkoon nga ko jiitu parce que danga ngaa sànni woon ak lu rabbaani ci ginnaaw yaa ngi dégg waaye nga jiital sa bopp samp àddina bi di ko jaamu ak sa bànneexu bakkane ñu ne la nag dindi loolu te nga indi ak lu rabbaani mu nekk sa imaam nga topp ko parce que moom moo lay xëcc jëmale direct ci pay yàlla bi. moo tax benn bis Mawlana la Tidiane radiyallahu anhu mu ngi waxtaan ak Seydi Ali Harazim mu koy waxal ci maraati bu aklu yi moom itam mu ne ko. martaba ñetteel bi ci aqlu yi mu ne fa hiya martabatul aqli al maashi moom la ñuy wax aqlul maashi maanaa xelam dund gi xelam dund bi waaw xelam dund bi mu ne wa hiya asfalul maratib wa ashadduha xawdan fi muxaalafati amrillah mu ne soo ko xamut mu ne mooy eh, martaba bi gën a suufe ci xel yi waaw te moo gën a tar ci xuus gim xuus yaa ngi dégg ci wuute ak yàlla moom foo ko fekk rek ci mooy yàlla ci la nekk ci wuute ak yàlla opposé ak yàlla rek moom ci la nekk mu ne illa an yaqdifa allahu lahu qaadifan min ar-rushdi yaquuduhu mu ne lu dul nag yàlla daf koo xëcc sànni ko sànni boo xamante ne daf koy sànni jëme ko ci njub yaa ngi dégg njub boo xamante ne moo koy womat yaa ngi dégg yóbbu jëme ko ci aqlu rabbaani mu ne wa illa fa huwa gariqun fi bahril hawa mu ne lu dul loolu moom aqlul maasi dafa lab ci géejug bànneex moom ci yooyu rek lay dund waaw ci loolu rek lay dund mu ne la sa illa fi shahwaati nafsi doo ko fekk mukk muy jëfandikoo lu dul ci bànneexu bakkanam waaw moom ci bànneex rek ci lay dox dégg nga moom aqlul maasi mu ne wa xawdihi daiman fi muqtadiyaati eh, aadaati wa maalufaati boo ko fekk itam ci loolu xuus yaa ngi dégg ci loolu la lab yaa ngi dégg ci mboolem aadaay bànneex yeeg bëggante yeeg dégg nga ak yu mel noonu mu ne wa saaxibu foo fekk boromam nag dégg nga asiru fi yeddi nafsi li galabatil hawa alayhi mu ne kooku dafay mujj denga nga dafay dox ci loxook bakkan dégg nga parce que noot bi nga xamante ne bànneexu bakkanam noot na ko ko noot na ko ko ba moom ci bakkanam rek la topp bakkanam rek la topp bakkanam bi nag mooy nafsu ammaarati bi suu'i lañ ci jublu mooy bakkan bi nga xam ne mu ngi lay xelal jëme la ci loo xamante ne dégg nga du lu baax dégg nga su ko defee kooku moom mooy ànd ak euh, xel moomu noonu dégg nga Cheikh Tidiane mu ne wal hawa naudu billahi minhu huwa zalaamul faid min istilaa'i nafsi ala al abdi mu ne boo xamut Euh, maanaa euh, bànneexu bakkan boobu nag dégg nga mu ne ñu ngi muslu yàlla ci ci moom parce que mooy lëndëm bi nga xam ne dafa bëbb yaa ngi dégg ci dëgg-dëgg bakkanu jaam bi dégg nga mooy lëndëm bi nga xam ne dafa bëbb ni leer di bëbbee ñëw ci bakkan bi ba bakkan bi euh, xëcc la yóbbu la ci aqlul kulli mu jëlee la foofu yóbbu la ci aqlu rabbaani noonu itam la lëndëm yaa ngi dégg eh, eh, di maanaam noonu la lëndëm di ñëwee di bëbbee ci sa bakkan bi yóbbu la ci aqlul maash yaa ngi dégg te boo moytu ci fu la jëmee ci kufru ci nga jëm yal na yàlla mosuñ ci noonu moo tax mu ne isa stawla ala al abdi xadafa bihi dégg nga eh, fi bahri dalali wal xubsi mu ne waxtu woo xamante ne méngoo na jaam bi moom aqlul maash yi dégg nga mu ne daf koy sànni jëme ko ci géej ak réer yaa ngi dégg ak géej def ay bakkaar ak tilim tilim dégg nga loolu mooy eh, aqlul maasi yal na yàlla musanu ci aqlul maasi mu ne wa qawluhu mu door a ñëw nag ci waxam bi nga xamante ne mooy wa salli salaatal fajri fii awwali asri dégg nga salli salaatal fajri fii awwali asri maanaahu salli salaatan salli salaatan ka salaatil fajri fii awwali asri dégg nga mu julli julleeg fajar ci eh, jamonoy tàkkusaan wala ci njëlbeenu tàkkusaan dégg nga mu ne lum ci jublu maanaahu salli salaatan dégg nga ka salaatil fajri nanga nga julli julli boo xamante na dafay mel ni julleeg fajar fii awwali asri maanaam ci njëlbeen nag eh, jamonoy eh, fajar asru nag dinañ ko firee jamono en même temps dinañ ko firee tàkkusaan loolu nañ ci bàyyi xel parce ñu bëri dañuy jàpp rek ne salli salaatul fajri fee wala asri na nga julli julleeg fajar ci njëlbeenu tàkkusaan man mii loolaa gëm loolaa jàpp waaye asru bii dégg nga daf koo firi mooy fajar mooy jamono tàkkusaan na nga julli julleeg fajar ci jamonoy eh, eh, eh, fajar fii awali asril fajar dégg nga salli salaatan dégg nga ka salaatil fajri na nga julli julli boo xam ne dafay mel ni julleeg fajar kon ndeke fajar dafay julli julleeg boppam kañ la koy def mu ne fii awwalil fajri dégg nga maanaa ci njëlbeenug fajar yaa ngi dégg mu ne haahuna huwa fajru ijaadil arwaax mu ne soo xamut nag fajar bii lu ci jublu mooy fajarak ak am yi mooy fajaru am ak yi bi roxo yi génnee ci pay yàlla bi dégg nga mu ne génn googu nga xam ne ñu ngi ko doon génne ci biir pay yàlla bi loolu mooy dégg nga fajru ijaadil arwaax mooy fajaru am ak roxo yi mu ne shamsuha min hadratil admi ila hadratil wujudi mu ne ba ni mu fénkee ni ñu ni ñu dégg nga moom de euh, fajar ak ijaat maanaam fajar am gi te mooy fajar ak rox yi dégg nga ni doon fénkee seen jant bi ni doon fénkee ci pays ñàkk ñu ngi jóg ko ci pays ñàkk waaye ñu jëm nag ci pays am dégg nga ñu jëm ci pays am mu ne loolu la lañ la bëgg a jàngal mu ne wastuqa lahu ismal fajri mu ne foofu lañ jëlee foofu lañ xottee dégg nga turu fajar li anna diya al arwaax alladi huwa aynul wujudi bazzaxa dégg nga min zulmatil adami parce que leer ak rox yi nga xamante ne mu ngi ballee dégg nga euh, <coughs> nga xam ne moom mooy jëmmi am gi leer ak yi nga xam ne moom mooy jëmmi am gi dégg mu ne ba saxa mu ngi fenkee mu ngi ceeñaaralee min zulmatil adami ci lëndam ak ñàkk dégg nga que bu zuuxil fajri min zulmatil layli mu ne comme ni ki nga xamee ne noonu la fajar dégg nga di fenkee ci lëndam ak guddi fajar ci biir guddi la génne mu ne noonu la euh, euh, leeru ruux yi dégg nga génnee ci aalamul adami ci pay ñàkk yaa ngi dégg ñu jëm nag yaa ngi dégg ci ci ci ci pays am yaa ngi dégg su ko defee ma tënk fii ni mu ngi jéggalu ci audio yi gudd na waaye euh, incha allah bu subaa itam ñu continuer rek ci salli salaatal fajri fi awali asri illaa ma sha allah allahumma salli ala sayyidina muhammadin haqq qadri miqdari azim la ilaha illa allah oh, القلب إلا أن يكون متيما abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fonnome war ngay sant Yàlla ñun lay digil kesselo do sidi baram